ziaraat nañ leen baax a baax mbégee leen jox leen seen wàccuwaay bu wér di nuyuwaat kullum kuy safoo a baax bi ñu jugee arène nationale dañuy daw ñëw rek fii benn bara télé bi fekk fi xale bi nga xam ne moo mujjee bëre ak Abou Ndiassé numéro 2 muy booy Bouba nga bàyyi mu nuyoo rek Bouba nuyu naa waaw bisimilah rahmaani rahim waaw ginnaaw guñ jullee si yàlla yeneen def di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu Basiru Kan waaw day sonn suñu ñu da si jàpp bu baax di sant waa Medina Fall lépp waa Mbaaleen waaw waa Medina Fall Mbaleen Thiès bàyyi ñu kenn waaw di sant suñu sëriñ sëñ Basiru kon di ko wax da si sonn bu baax a di ko ñaan a gudd fan ak wér di nuyu jëwrin Mor jëwrin Mor day sonn suñu combat si jàpp bu baax a baax di ko nuyu bu baax di nuyu Zoro Zoro day sonn sama combat di nuyu sama maam nag sama maam day sonn sama combat da si jàpp bu baax a baax a baax di leen ñaanal ñun ñëpp gudd fan ak wér di nuyu sama papa bu baax moom tam day sonn suñu combat bu baax di ko ñaanal gudd kër gi yëpp di nuyu sama yëpp waaw képp ki bi buuba rek maa lay buuba nga jël combat mu nekkoon spécial nekk mu nekkoon grand combat grand combat bi am jafe-jafe ñu jox la grand combat bi sa diggante ak Abou Ndiassé wàccaay bi at bi jël ndax xam nga ko. waaw Abou Ndiassé bañ koy jël kii wu ñu ko xamuñu ko noonu dama dañ maa woo rek ne ma yàgg combat yàgg Abou Ndiassé taxaw na mooy ah ñu ne waaw ma baax na. waaw waaw ma forom xaw ma ma xool vidéo am ni ma lan moo kii du Thiès mooy loolu noonu ñu jël ko pare ko comme ñu doon pare yeneen lamb bi rek ànd sa ñi ma war a àndal ànd sa ñoom ñoom Sita ñoom du Lakantaan ñoom Cuku waaw ba Zam ñoom Naar ñoom Marle di si ànd ak ñoom di si liggéey matinal bi bu baax a baax ànd si suñu waa écrit tamit ñoom tamit soon nañ si bu baax a baax waaw su ma ñëwee contact bi tamit dañ may teg lu metti waaw ñoom Cargo ñoom Jago ñoom Unca Bulldozer Boy Malika waaw. boo yëpp dañ may ànd ak man di ci entraînement yi bu baax ñoom Aziz Baabo yi ñoom Mbaye Diouf waaw. nga jël Abou Diassé numéro 2 coow li bari à tout moment bu ñu déggee Bouba rek micro mu ne maa mën maa ëpp doole fan nga wékkoon loolu. waaw ma nga lu wékk maa gën a nekk lu metti. fan nga a nekk a maa gën a nekk xale maa gën a nekk booy te maa gën a ñeme lu metti. te lu may entraîné man leer na ma moom du ko entraîné man fii laa dëkk man fii laa dëkk si affaire nga la dëkk de. fu ñuy roor gars yi fu ñuy jóge di ñëw di roor man fa laa dëkk si xool bi laa dëkk waaw di entraîné guddi ak bëccëg mu war a chaque jour saa fu ñu dajee ma ne ko maa mën maa ëpp doole xale bu ndaw laa maa daa ko bëre waaw. ñu gis si biir ji premier mi-temps bi buubaa li bëre làmb xamu ko nga dem mi ñëw ërtal ko lan la. waaw làmb tey làmb ñu noonu la mënoon a demee quoi. non non xaw ma yow sax mooy loolu dañ ma xawoon a kiiloo sama bopp tuuti rek xam nga rek amut soo nekkee xale doog a ñëw war a bëri bëri ganam combat yi gars dañ conseil yi day bëri sa bopp quoi kenn ko nekk daan defal lii defal li waaye bañ demaatee deuxième mi-temps ba ñëw sama coach zoro yi yeewi ma ne ma bëreel kii lu ngay bëri xajul si kawam yaa mën yaa ëpp doole demal bëri la waaye ma ma firi ma ñëw rek yaa ma gën a xam nekk si nekk comme nu ma gars yi xamee woon ak ni ma doon bëree ma ñëw wane ko ma xam li ma. bi ngeen bëree mu yegg la fu sori daf na copp sa tànk yegg la fu sori. waaw àgg na ma fu sori. waaw tamit suñu gëm-gëm ak lu ñu entraîné ñu xam nañ ne lii daanuñu waaw ñu maîtriser ko ba génn si waaw. ñu toll nii nga daan Abou Ndiassé ñu gis ne ñi ko indi Laurent si la bokk Liss Ndiago si la bokk Trondoom si la bokk tey jii sa siège da nga ko fay tegaat ba léegi wala da nga ko fay jëlee. waaw ah, ah, sama staff lu ñu wax rek ñoom ñoom laa déglu de. fu ñu waxuñu yow yaay kii dugg si géew gi. non non ma maa koy dugg ñoom lu ñu jël rek man su ma ñëwee dugg ko si géew gi wane ko wane li li li tax ñu jël làmb ji waaw. Bouba fi ñu toll nii génn nga si combat grand combat Bouba ban lobby la bokk. waaw ah, fi ma bokk làmb waa làmb promoteurs yi amateurs yi ñoom xam nañ fi ma bokk ak fi ñu ma war a boole. seetaan xamuñu Bouba lobby bi mu bokk. non non gars xam nañu baax gars yi xanaa yu këppi wuñ seen bër di xool gars ñu ngi xool de. dañoo bëgg xam nga seetaan bëgg nañu wala promoteur bi seetaan bëgg na xam ne Bouba kat fii la bokk xaaral ma ñëw démarrer sa combat bi xam ne Bouba fii la dëkk. fii ñi la bokk billaa wallaay ko fuñ ma dugal ma bëre. idi pare naa fépp sama staff rek laay déglu suba suba suñ ma joxaale avance su jàmm gan sama staff d'accord ma bëre ko ñu si ginnaaw Zoro moom la ñuy déglu rek. jàmm ñun ñoo fa nekk ñoo xam ne c'est adversaire potentiel la ñoo xam ne ñii avance bu du gisee du génnaat. bari na comme kan. non bari na. billaa wallaahi du bari na. bari na lamb day dox. waaw. te dugg nga jàmbu gën. sax da nga ne say adversaire ñu ngi jàmm gën potentiel. bëri na waaw bay nga laaj bi tudd bi turu kenn ñu yaakaar ne mooy loolu noonu fekk demewu fa noonu sax. moment tudd la. wax da ngaa jóge si combat. waaw. billaa wala jàmm fa laa teg siège bi ñoom ku si pare rek na ñëw te ku si ñëw da ngay toog si siège bi waaw. léegi ñi war a ñëw nee léegi may ma ñaar ma ñaar ñi ñoo war a ñëw. non ñi war a ñëw bari nañ ku ñëw rek. billaahi pare nañ. c'est dafa yaatu. pare nañ ñun pare nañ pour bëre ñëpp du jàmm gën kese nañ pour bëre ñëpp fii ku ñëw rek ñu bëre yow waaw ku gën a ndaw si làmb ji su ñëwee suba suba suba. waaw waaw. dégg nga loolu. waaw waaw noonu la demee gars ñoom laay déglu rek billaahi wala su ñëw. su ñëwoon suba suba ñu jël avance bi moom ñi muy wax nii ku si ñëw suba suba ñu jël avance bi waaw ñu moom. waaw. ah. dégg nga ma Abou Diass numéro Baba Jaxal. jeex jàmm ku ñëw baax na. Ah. li mu wax loo si wax. waaw ah, lu dañ koy dëgg rek ñun pare nañ pour ñëpp ku si ñëw ñu jël ñun pare nañ pour bëre ñëpp. ñim lim nii daal ñim lim nii. pare ñim ku si ñëw ku si avance am ñëw suba ñu reeree lépp a ñëpp a ma si gënal ñëpp a nooy ñëpp a pataas lañ. kon dama su ma bëgg a def jàmm gën daal ñoom say bonbon lañ. kenn dëgëru si. lu ma leen wax rek. ñan dëgëru ñu. kenn dëgëru si. wax su leen wax ji rawee si làmb ji nii jeex na coow rek. yow ñan ngay wax bu leen wax ji rawee si làmb comme ñan. ñii kii ñu mu lim. kii ñu mu wax ñu mu tudd seen. xanaa ñeme woo leen. non non man du ma tudd ma tudd kenn moom pare ma pour. ñoom waxoon ma bi yaa ngi dem si koo xam ne français la tapet la du wax tàppel la du wax wóor na yàlla ko si jël sama avance ma duma ko. balaa nga jël avance naan diw ak diw diw. kii ñu mu wax nii Baba Jaxal ak Baba Jaxal ak kii nii ak kii nii abu ñaar un un beeg. jeex jaam ak par nañ pour ñëpp. waaw Abou Ndiassé tax na nga laaj Abou Ndiassé numéro 1. bu baax xanaa say mbokk dañoo nelaw ngor su ñëwee ñu bëre. Eh, yokk nga naa bu bëre ñëpp. la moo tax nga génn jàmm gan rek daw dem ngor. waaw maa xam ne maa ñoom laamu waaw. jën kayri kii ni jën jën maa nuuloole sax non non jën doomu bi mañin mañin kayri su ñëwee ñu bëre pare naa pour bëre ñoom ngin bu yoof na ñëw ñu bëre nga bëgg ñoom laamu la. laamu dañoo boole. waaw dañoo war a bëri moom jaarul. mañin ngin bu yoof bu ngor ne ñëw ñu bëre la la. rek. waaw te ku si ñëw moo droit dara mañin kayre. fekkee li ngay wax mu ngi si yow da nga leen ko. ñoom ñu pare naa pour ñoom. billaahi ili ñu ma la wax nii ñu pare nañ pour ñoom ñëpp billaahi wallaahi ku ñëw ñu bëre. affaire yi instant bi ku ko jëlu da nga ragal. ku ko jëlu nag maa la Ibou damay damay dóore damay bëre waaw su ma jàppante si bëre bi dama lay daan jël bu rëy su ñëwee si xeex bi ma duma la daan waaw pare nañ si lépp. billaa walaay pare nañ pour ñëpp. ne nappuñu kenn ku ñëw ñu bëre. billaay exemple pare nañ pour ñëpp. est-ce bi nii gis na si autorité yi ko jàppale en 100 pour cent. Ah, gis ñu gis billaa walaay woote nañ ko annoncé nañ ba sonn pour gaa ñëw jàppale. Ah, benn baraag gii ne amul autorité. Ah, benn baraag bi laa wala manqué nañ ko bu baax a baax. billaa su ñu amee combat dañuy sonn su si booy yi nii. billaa wala dañuy dégg de. booy si jàpp booy sonn booy ñooy jënd bola gi ñooy jël kaar yi. dañu soxla nañ ku ñuy jëndal ay kaar. ku ñu jëlal ay kaar jëlal jënd ñu ay bolok. ndax combat day ñëw booy yëpp dañuy def instant yenn booy duñu dugg ndax duñu am tige. billaa wala ndax tige yi mooy dañuy seer. te ñun soxla na ñu amee combat ñu jëndal ñu ay dix tickets wala quinze tickets jëlal ñu ay cinq dix Ndiaga Ndiaye. boo yëpp dem stade ñu loolu lañ bëgg na gars yi ñëw jàpp si combat yi di si jàpp di wax ñun doomu dëkk bi lañ fii lañ boog dañoo war a jàppale bu baax a baax waaw. waaw comme da ngaa jóge si journée combat fi ñu toll nii da ngaa war a dallu ku ne mbër mu ndaw soo jógee journée am na ñu si jàpp. nañ la bàyyi nga woo waaw di sant si jaabu yëpp ay kang ferrailleur jàpp nañ si combat bu baax a baax ñoom Pa Fall jàpp nañ si combat bu baax a baax Njaga ferrailleur ñoom Tafa billaa wala jàpp nañ si combat bu baax a baax waaw ñoom Bunaama waaw jàpp nañ si combat bu baax ñu jàpp si combat bi nañ ko waaw jàpp di jàpp si combat bu baax a baax sama mbok mbëri waaw ñëpp jàpp nañ si billaa wala nuyu ñëpp barke yàlla sama ménageur ñoom général ñoom armée di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di gis naa seen taxawaay tey ñoom Bulldozer ñoom Mbel Papa Sow Kosu billaa wala ñoom Unca billaa di leen ñaanal rek suñu amee combat yal na leen yàlla may ndam ñoom ñëpp ndam bu rëy waaye. billaahi gis nañ sa sa kur si toog ci siège bi mel ni yaram bi day dox. la. waaw nga waaw suñ ko la suñu nijaay mag suñu lébu waaw ñu amee combat da ciy sonn de. waaw daal bi nga démb la jógee Casamance ñëw barke yàlla ndax làmb ji nii. billaahi. waaw Ibi dina fay bu baax. waaw di la Ibi kontaan. Khalil di la bu baax a baax di la ziaraat di sa wàccuwaay bu di wax doom day cuq maa ngi lay bëggee bu baax a baax doom day cuq maa ngi lay bëggee bu baax a baax yow xam nga man xam naa comme yow sa àdduna yëpp cuq nga si bor rek kon bëggee naa la bu baax a baax caxu cuq waa ci xog la <laughs> ma bëggee baax ma di bëggee waat ñëpp di ziar waaw di sant Mareetu si combat da ciy jàpp bu baax a baax gisoo polocage bu rëy la defar ñëw dugg ko ah. waaw di nag waaw njóobee ñoom neex ah dañuy sonn si combat bi neex gi mooy lamb lamb day sonn sama combat da ciy jàpp bu baax a baax a baax waaw na ma si lépp nag billaa wallaay lamb di ñaan gudd fan ak waaw du bëggee ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu ñu jàpp si combat beeg si jàppul ñëpp di sant ñëpp waaw waaw di ko nuyu bu baax a baax waaw say samay combat di si nuyu waa koñ bi yëpp nag grand ñu kenn borom sareet yi waa gaas kalandoo yi billaa wala taala yi bàyyi ñu kenn booy Diop waaw ñoom booy Diop bàyyi ñu kenn di nuyu ñëpp di ñaanal sees si nag yàlla na ko yàlla may ndam waaw xale di la bëggee waat baax a baax di la ziar di bëggee séeri mbës maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ko jox wàccu waayam bu wér di bëggee waat kulum rawatina di ñaanal na ñu nekk si biir kaso bi sambar in ba fi mu rek maa ngi bëggee waat ñëpp di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccu waay di wax dig daje beneen émission beneen daanaan si wasaare rek kese dong la doon ak doom day cuq tout droit